yas Aliou Mbaye nuyu naa ñëpp ñu teew ci saal bi yëpp naa leen di euh, jaajëfal teewaay bi leen teew ci conférence de di leen dalal di am yëg-yëg lool ci. le fait que en un laps de temps lañu décider conférence de bi mais terewul ñëw ngir ñëw dékku li nga xamante ne mooy li ma indil waa Sénégal li ma indil waa Africa li ma indil waa monde entier dalal naa leen merci et je suis waaw mën naa peut-être gën a développer tuuti rek par rapport ak euh, li nga xamante ni moom laa indi muy euh, single bi intitulé man ak yow mu nekk euh, morceau boo xamante ne dama ko jagleel ñi nga xamante ne yàgg nañ ñu suivre bëgg lu ñuy def mu nekk ma sentiroon besoin indil leen li nga xamante ni morceau bi pour rendre leen ci hommage rendre leen ci hommage parce que ñëpp xam na ni dama effectué woon un moment de pause ci sama carrière mais terewul maa ngi jot ay messages saa su ne ci messenger yi ci téléphone yi ci Instagram yi ci Facebook fu ne maa fay jot ay messages yuy féddali di ma seen cofeel ci man des fois dama bu ma bu may jékki di jot ay message ma ne waaw pourtant quand même raar naa waa ñii ak jamono ji ni muy doxee musique bi fi muy toll il y a de très bons de très bonnes chanteuses très bons chanteurs mais terewul seen cofeel ci man musul deñ terewul damay sentir que ñoom ñu may bàyyee xel damay sentir ñu ngi naan ma d'accord effectuer nga un un moment de pause mais xamal ni ñu ngi lay xaar ñu ngi lay bàyyi xel ñu lay xaar donc xaar boobu ñu may ñu may wan à travers les messages à travers les coups wala yóbbante yi moo tax ma ne ah man foogoon naa sax dañ may fàtte ñun mais. je me suis rendu compte que ñi nga xamante dañu yàgg bëgg suivre lu ñuy def mësuñu ñu fàtte au contraire ñu ngi am toujours patience pour nga revenir di di leen bëggal comme ni ñu ko yàgg yëgee loolu tax nag ma ne damay def un single d'abord pour nuyoo leen ko nuyoo ko waa ñi nga ñu yàgg suivre nuyoo ko waa Sénégal nuyoo ko waa Africa nuyu ko monde entier mais derrière ce single comme ni ko Tafa waxee comme ni ko Alioune Badara waxee am na yeneen surprise yu ñëw derrière muy un album entier boo xamante ni euh, c'est déjà enregistré ñu ngi ci mais xam ngeen fi ñu toll nii ak jamono yi Covid bi ñu nekk boo defee sa album dafa laaj tournée dafa laaj vraiment. Euh, def promotion boo xamante ne war nga war nga mën a dem fu ne dem def sa promotion présenter album bi leneen ak leneen mais on se dit dañuy rafet njort am yaakaar fii ak 2022 bi yàlla dinañu teggil lii nga xamante ne moo ñu sonal lool muy Covid bi te yàlla ko yàlla def xëy na dinañu gën a mën a dugg ci loolu ak suñu sago mais comme kenn mënu koo xaar nag. ñu ne ah nañu def loo xamante ne en attendant mooy indi single pour nuyoo ko waa Sénégal waa Africa lépp pour wan leen ni maam yi ngeen yàggoon a bëgg ci seen xol xam leen nii man noonu laa leen bëggee ba fépp fu ma dem lépp lu may def fàttewu ma leen maa leen di bàyyee xel maa ngi leen di bàyyee xel comme war na ma def benn office bi indil leen ko pour wan leen que wan leen ni je suis là seen maa bi woon seen maa est toujours là on va continuer la route incha allah ensemble